gannaaw bi benn ci militant candidat Aminata Assome Diatta doon def ab caravane ca goxub Kawsara nekk ci Kër Massar Nord doon bañ ay adversaire politique yàq affiche da mu def ci buntu këram ca noonee nag lañu ñu weesaloo ay kàddu ñenn ñoo xam ne dañoo ngànnayoo ay cocktail molotov mujj gi ñëw nee na sànni ko ci këram làkk kër gi ab sëtam am ci ay gaañu gaañu ba ñu rawale hôpital lii lañ ci fësal. ay deux heures ay une heure matin sama jëkkër jékki-jékki rek sama sët laa tëddaloon. sama jëkkër jékki-jékki rek ne daal di yuuxu ne ma wuy taal nañ ñu taal nañ ma dégg sama sët bi di yuuxu ma tourné rek fekk xale bi yëpp yaram bi yëpp jàpp. takk sama jëkkër yaramam bi yëpp lakk ci laa daw génn ci biti ñuy yuuxu pour nit ñi ñëw jàpp ñu am na benn xale bu góor bu nekk fii nee na moom bi muy tëdd si gis na leen ñoom ñu ngi taxaw ñu ngi yor ay morceau. def ci seen lëma ci sagar di taal dugal ko ci biir muy daw si la tànk muy daw ñu jaar nii sama ginnaaw mu topp leen ba kër ba kër Dieynaba Ndiaye si ñi nga xam ne nag ñoo di équipe de campagne bu Aminata Assome Diatta ñoo daje ak taskatu xibaar yi ngir sàkku ci kilifa yi yor wàllum yoon jël seen ay matuwaay ci ñaawteef bile nga xam ne mu ngi nara faagaagal bakkan ndax dañoo jàpp ne acte terroriste la. Doudou Keita. dem di taal kër ñit waxuma la sax responsable politique mais jël safara taal ko taal kër ñit bët sëtam ak jëkkëram ñëpp lakk si kër gi suñ suñ la ko wanee da nga naan non c'est pas vrai na kii acte yi doomu aadama def ko acte terroriste la yu mel ni nag nguur gi dafa war a jël say responsabilité pour traquer ñi nga xam ne ñoo ko def. ñu ñu ñu dem at la justice ba fi mu yoon fi mu nar a yam mu yam fa. mu mel ni rek gannaaw li ñu nemmeeku ci yenn bërëb yi violence bi gën naa am ci biir campagne électorale bile nga xam ne ab xale bu ndaw jamono bii ma ngay ca diggante dund ak dee mu des nguur gi jël ay matuwaayam ngir lu ni mel dakk te leeral mbir mile ci jamono yi wate gi ñu dëgmal.